jël jël jël aar yëpp corps euh, euh, métier d'art yëpp regrouper leen si benn si si benn plateforme créer benn affaire boo xamante day positif quoi boo xamante ni bu mu lay def soo su maanaam su fekkee su su fekkee aboutir na quoi te di te di ñaan tamit aussi mu mu maanaam lii nii mën a më më mën jëm kanam quoi mu bañ yam fii nii ñun ñëpp ñun ñëpp ñun ñëpp ñun ñëpp ay Thiès lañ te bon dañoo dañoo war a def quelque chose pour la région de Thiès quoi parce que fii la terre est là on a la semence mais instant lan moo des maanaam ñu ñu jël ko ñu jël ko saxal ko xam nga affaire bi mën a mën a mën a mën a mën a mën a meññ quoi pour ñu ñëpp parce que tey parce que tey lii ni tey su su su sottee projet bii ni su sottee tey du maanaam du pour du pour du pour du pour du pour ñun ñi personnellement kese kese mais. pour région de Thiès bi yëpp la du du doon Thiès commune kese mais région de Thiès yëpp la ba ay ba ba ay ba ay yenn commune dinañ ñëw euh, rattaché wu si waa ñun essence bi ñun ñun ñun loolu la ñuy maanaam loolu loolu loolu la ñuy loolu la ñuy mbëbët te aussi tamit loolu la ñu bëgg maanaam mu mu mu mu